yaa xayra day asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen bu baax a baax rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen wax rek ne dal leen ak jàmm ci euh, xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee bés bu yàlla sàkk tey bàyyeekoo fii ci Touba ci biir weeru koor gi xibaar yi nag tey jii benn ponk lay doon muy euh, ziar bi nga xam ne waa Daarul Moxti ci ndigalu xalif ba di Serigne Abbas mbake mu yebal ñi nga xam ne ñoo di njaboot gi ànd ak Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khoudous ak mbooleem njabootu borom Daarul Moxti gi ñu ñëw nag doon jébbal sëriñ Mountakha Mbacké Bachir addiya ji nga xam ne moo jëm ci université bu euh, Touba mu nekk euh, ziar bu am solo ndax jébbal nañ sëñ bi lu toll ci téeméeri million ak juróom-ñett fukk maanaam million millions de francs CFA ci teewaayu kilifa yu bëree bëri ni ñu ko waxee sànq waaye ci kanamu sëriñ bi ki nga xam ne moo di sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khoudous am na kàdd yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci ziar bi ñu an ko. ziar di nuyoo ci bi sëriñ Abbas. moom mi nga xam ne mooy borom daaru moxti tey mooy kilifa ku yaakaar boroom daaru moxti mu mu am nu mu doxale woon bi muy door a toog ci mm, jataay ba dafa am lu mu tërale woon am lu may liggéeyloo am lu muy liggéeyloo sëñ Cheikh Assou Faye mi kenn ku nekk mu am lu bëgg nga di ko taxawee ci ab liggéeyam gàttal ko mooy dafa bëgg ànd ak ñëpp lu aju ci borom daaru rek ñu ànd liggéey bi mu am ca loo xam ne gën naa fes tey ndax dafa waxoon ne sëriñ Moustapha Absa moom sëriñ mu daw bal mm, defu ko jëwriñ yàllaa ko def jëwriñ ci ba fi bàyyam nekkee sëriñ mu daw bal ba tey kon fa mu nekkoon foofa rek la ko la ko la koy teg waaye da caa tegoon itam ne sëriñ maam Thierno mii moom sëriñ Cheikh Awa Balla fépp foo xam ne sëriñ safaa waroon na faa teew ci wàllu jëwriñ gi ànd ko ñun ñëpp kan ku ci ne la muy liggéeyee su boobaa suñu maam Cerno bu fa teewee rek mel na ni ñëpp teew nañ fa moo tax mu joxe woon ndigal njaboot gépp nañu daje kër sëñ maam Cerno ñu waaje foofa door a ñëw ci ci yow ci ci ziyaara bi ab ziyaara rek la ni ko waxee léegi ci kayit bi ramziya rek la ndax fa ñu bëgg àgg àggaguñu fa yéene ji moom àgg na fa waaye eh, jëf ji àggagu fa te gëm nañ ne nii nga nii nga xam ne nii la sa sedd boo ko boo ko ñaanee fañ bëgg àgg dinañ fa àgg te gëm nañ ko bu baax a baax sëriñ bi nag di sëriñ Abbas dafa bëgg mbooleem koo xam ne kii e, barkeelu na ci liggéey bi e, nga warlul ko ci sëriñ tuuba e, li mu ci def buñ ko fekkewaatee dafa mel ne dañoo dañoo bayoon ba bay farmango bu ñu ruujiwaatee bu ñuy delsi kenn ku ne lam ci defoon na man ñaaram wala ñettam loolu loolu loolu la ñu di fas yéene ñu ñu kenn ku ci nekk mu fas ko ci li mu doon def te nga nga fasal nu ko te ñaanal nu ko ñuy ñaan yàlla sunu borom it mu gën laa yàggal bu baax te te gën laa wéral say cër ndax it maanaam euh, ñu baree bari bi ñu la defee ngay Serigne Touba doonagoo Serigne Touba ndax ni nga defoon waa kër sëriñ Touba yi moo tax fekke nañ barab yu baree bari mm, waxtaan waa nga fa doon wax ci nekku Serigne Cheikh Sidil Muxtaar te li si gën a bari wala Serigne Mouhamadul Amin Baara waaye loola lépp booba gisoo yow yaay kan wala wala gisoo sëriñ Bachir waaye yàlla moom da du delloo ay loxo sëriñ Touba du delloo loxo kon foofee nga xam ne fi nga tegoon kilifa yi e, nëbb sa bopp yàlla nag moom ku nëbb sa bopp ngir moom moo lay feeñal a tax na am na lu ñu gis loo xam ne gëm nañu ne e, sunu borom e, dimbale nanu ci ci ci ci yow ba yoon wi amul benn tiitaange amul benn njaqare xam nañ ne kanam rek lay jëm ndax loolu mooy li nga xam ne moom la ñu seetlu ci sa xilaafa gile ñu ñaan yàlla sunu boroom rek mu gën a yàgg te ànd ak wér goo xam ne gii eh, gu mat sëkk lay doon te ñi nga xam ne itam dañoo fas yéene ànd ak yow liggéey kenn ku ci ne sunu borom defal ko loole loolu sëriñ bi bëgg itam ci njaboot gi nag ci suñu kilifay bopp yi ñu àndal sëriñ Maam Cerno sëriñ Cheikh Assou Faye sëriñ Xaadim ak bokk yi ñu àndal yëpp loolu moom mi ngi doon sa loxo kenn ku ci nekk daal eh, bu ñu fi dellu si waat déwén nañu ànd ak wér gu mat sëkk fekk la nga am wér gu sëkk te lépp lu ñuy def lu nekk itam mu am ci ngërëmul sëriñ Touba loolu daal mooy li nga xam ne ginnaaw kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khoudoss yooyu ci kanamu Serigne Mountakha Mbacke Bachir ci ziar bi ki nga xam ne moo di sëriñ bi nag sant na leen baax gërëm leen ci taxawaay bi waaye it am na kàddu yoo xam ne moom it muy xalif général des mourides yëkkati na ko fa ñu ànd teewlu ko. nee ñu da koy tënk rek ci yaari yëpp. fas yéene sama jaayante ak seen jéego yi ak jataay bi da ciy fas gën a fas yéene gën a yeesal ak jaayanteem ak Serigne Touba te di leen ko seeral nag nee na mi ngi leen di seeral na it mu ngi fas yéene gën a feddli ak laxasaayam te fas ko yéene ànd ak yéen mu ne ngeen xam ne itam yéenay mbëgam yéenay wéttalam nee na yéenay ab soññam itam nee na ni mu koy waxee rek mooy maam Thierno ni mu demee ci moom te yéen ñii ngeen di jëmmi maam Thierno ci taxaw fi moom nee na sant yàlla bu baax a baax nee sant na yàlla bu baax ci tawfeex ji ko suñu borom defal ci maam Thierno sant sëriñ bi nga xam ne mooy sunu lépp tey ëllëg nee na daana wax waaye da koy waxaat ne amul kenn comme nangu mu gën koo bëgg maam Thierno nee na xëy na xamul lépp waaye lam ci xam doy na sëkk te nee na la ci ëpp nag Serigne Bassirou moo tax mu xam ko ci lim nee daa xam Serigne Bassirou foog a maam Thierno tolloon mu ne day wax ne Serigne Bassirou li mu jàng gis ko ci téere yi nee li mu jàng ci téere yi gis ko wala li mu dégg wala li mu xam amul kenn koo xam ne Serigne Mountakha xam na ne Serigne Bassirou gën naa naw kooku ci maam Thierno nee na loolu bu yàgg la ko waxoon danañ da koy yeesalaat ci jotaay bi rek moom nee na loolu la gëm moom sëñ nee na loolu it lay dund ci maam Thierno. nee na ngi leen koy seeralaat kon waaw mun mun na jataay bi lim ci yëg dafa amul lenn lu mu ci mën a leeral fi ko àgg ci mbégteem ci soññ gi mu koy soññ ak dolli gi mu koy dolli yaakaar jataay bi li mu ci yëgee mënu koo misaal ci ci làmmiñam Eh, nee na rek la ko mën a tënkee door a gën a yeesal ak cant bu baax a baax nag hmm. mi ngi yónnee di yeesal ak cant ak ngërëm ci sëriñ Abbas ak xelam mu dal nee na muy gën a sos gën a fees mi nga xam ne am na ko ci yéen di leen di leen gërëm loo xam ne Serigne Touba rek la koy seeral nee na mooy lim ci mën a wax li ci xool loolu rek li ci mbokki kàddu yi xalifa général des mourides yooyu mooy tëj xibaar yi waaye dañuy tàggoog yéen ak kuréel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah goo xam ne jàng nañ ko fii ci résidence Khadim Rasoul lépp jëm rek ci ni nga xam ne noonu la sëñ bi di dundalee koor gi kon mbokk téléspectateurs yi ñu leen sant bu baax di leen gërëm ci teewlu gi dig leen daje ëllëg incha ci yeneen xibaar yoo xam ne dana bàyyi ko fii ci Touba Mbacké kon ñu bàyyi leen ak kuréel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah wa والقلم